salaamaaleykum téléspectateur Equivox TV mbégte la ñuy am tey di dalal Alioune Badara Mboup délégué général adjoint bu FRAPP France Dégage nekk euh, membre ci plateforme citoyenne ñoo lank Alioune Badara ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur Equivox jërëjëf euh, Mbose di remercier seen euh, téléspectateur yëpp di ñaan yàlla aussi waxtaan bi ñu ndara si doon loo xam ni dina jëral askan bi njariñ. waa Alioune Badara ñu gis leen fan yi sumbu ngeen ay xeex bu ci mel ni benn pour libération seen camarade Guy Marius Sagna beneen bi nekk pour hausse prix d'électricité bi ñu lay ma lay laaj tey lan mooy priorité ci ñaar yooyu actuellement. waaw fi mu toll nii mënuñu wax question de priorité parce que ñaar yëpp son étroitement liés ndaxte depuis bi nga xam ni ñëpp gis nañu la hausse injustifiée de l'électricité des patriote dañu ànd dem palais te foofu amoon na ci ki ci gënoon a fës mu doon Guy Marius Sagna te ko xam Guy Marius askan bi da ko yitteel li askan bi di sentir da ko yitteel et man je peux même présager que ni Guy Marius Sagna tey nekk prison te askanu Sénégal tey nekk si jàmm moom loolu dina nekk loo xam ne choix la bu muy def moo tax sa liberté et une exigence mais également la baisse de l'électricité l'absence aussi euh, d'une justice bi nga xam ni c'est une justice à double vitesse bokk na ci loo xam ne nii dafa nekk ay priorité ci suñu combat donc en en un mën nañu wax ni suñu combat donc loolu c'est également deux objectifs yoo xam ne qui sont étroitement liés c'est-à-dire la liberté de Guy Marius Sagna mais aussi euh, la baisse du hausse de la hausse de de l'électricité est-ce que bu ñu xoolee tey ngeen bëgg jàppandoo ñaar yëpp est-ce que population bi nañ leen topp parce que quoi qu'on puisse dire nañ gis ne Guy Marius Sagna population bi la doon xeexal mais est-ce que sentir ngeen population bi seen tey ñun dañu jël benn choix c'est le choix de d'être debout mm-hmm. je pense que ni population Sénégal aussi comprendre nañu que ni ñun xeexaluñu leen c'est-à-dire que ñun dañuy bay suñu waar ci ci tool bi ñoom aussi tey lii war population bi yëpp moom mooy ñu ñëw taxaw ci combat boobu ndax électricité je pense que ñëpp ñoom ñoo koy fay te aussi jàpp nañu ni population yi cette fois comprendre nañu que ni combat bi seen combat la ndax suñu manifestation yëpp bu ngeen ko gisee da ngeen fa gis ay personne de trois du du troisième gis fa ay ñoo xam ne ni ay jeunes lañu gis fa ay jigéen ñëpp ñëw taxaw dans les villes dans les villages ñëpp ñu ngi commencé di organiser wu. donc population yi adhéré wu nañ ci cause bi te aussi fépp foo dem dañuy boole ñaar yi dañuy boole la libération de Guy Marius Sagna mais aussi dañuy boole la hausse injustifiée de l'électricité loolu nag dafay wan ni que ni ñoom comprendre nañu que ni Guy Marius Sagna mii lii ko yóbbu kaso du ci coobareem. mais dafa doon taxawal askan bi te tey askan bi lii waru garam mooy mu exiger sa libération exiger sa libération ndax am na fi tey ñoo xam ne ci euh, gouvernement Macky Sall def nañ fi loo xam ni Guy Marius Sagna defu ko am na ñoo xam ne tey détourné nañu tey ay deniers publics jël surfacturé yi nga xam ne lu mel ni ñebbe di ko jël di ko jaay di ko jaayee di ko jënde kilo ñebbe 4500 ñeneen ñi tey boo demee poste ñu ngi naan am na déficitu cent huit milliards mbay Prodac tey gis dégg nañ ko ci scandale trente neuf trente neuf euh, milliards yi ak ainsi de suite mënuñu mënuñu lim di di te duñ fi jóge tey donc loolu mooy wane ni tey ñi nga xam ne ñooy le les honnêtes gens ñoo nekk ci prison mais ñi nga xam ni tey ñoom ñooy les voleur de la république tey ñoom la ñu jël di leen sàng di leen aussi euh, essayer protéger je pense que ni tey euh, Sénégal yëpp décrypté nañu ko ni état bi lenn rek la amoon comme objectif moo doon retenir Guy Marius Sagna en prison d'autant plus que gisoon nañu fi dans le passé que takkaloon nañ ko fausse alerte au terrorisme te loolu bi ñu demee ba ci biir ñoom ñu xool xam ni euh, fi ñu dugg du baax parce que Guy Marius Sagna du moom moo partagé woon communiqué boobu Guy Marius Sagna du woon moo toogoon di def déclaration ci affaire terrorisme Guy mari Sagna du personne moralu frappe France dégage mais Guy Marius Sagna dañ ko bëggoon a taqal téye ko ndax tout simplement am na taxawaay ak Pastef ci li nga xam ni moom mooy la gestion de nos ressources naturelles euh, bi ñu demee ba xam ni loolu baaxul nag neen xam nañu ñun la raison d'état ne capitule jamais du jour au lendemain moo tax état bi depuis ay mois ñi ngi toog di xool ni koy jéem a jàppee ci loolu ñu paranteeru ci benn manifestation boo xam ni jàppandoo ci neuf personnes dont Guy Marius Sagna mais gis nañu ni dañuy bàyyi ñooñu par vague successive dañuy bàyyi ñii bu ñu paree bàyyi ñii bàyyi ñële donc tey wane nañu max masque yi wàcc nañu masque yëpp tombé nañu léegi état Sénégal leer na ni moom huit personnes yooyu soxlawu leen woon daf leen doon ñàmbaase maanaam li muy jàppe Guy Marius Sagna pour que ñoo ñu mën faa toogandoog ñoom pour mu wax ni dañu doon marche ci wetu palais ba donc lii am tey mooy ñoom Guy Marius la ñu soxla woon mais Guy Marius moom mu mu soxla dafa am lenn loo xam ne nii moo làmboo nag ci ci ci ci ci jàppam parce que tey ñëpp xam nañu Frapp France Dégage taxawaayam ci anti impérialisme taxawaayam ci li nga xam ni tey mooy intérêt français yi nga xam Macky Sall moom la fi toog di servir ci loolu depuis lors le euh, l' ambassadeur Christophe Bigot wax na ko ni moom bu gisee ci miiru yi nga xam ni moom mooy miiru Dakar yi ñu def fa Frapp France Dégage xolom day bëgg a génn ñu dégg aussi ci fan yi ci Niger ki nga xam ne moom mooy le président Emmanuel Macron mu ni euh, yéen président Afrique yi nga xam maa leen yilif jeunes yi nekk ci seen dëkk tey combattre suñuy intérêt dama bëgg ngeen wax ak ñoom te tëj seen gémmiñ bi mu waxee loolu je pense que ni kii premier victime bi mooy Kémi ba waaye deuxième victime bi tey ñëpp xam nañ ni c' est Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna c' est quelqu'un qui dérange donc en gros mën nañu wax ni Guy Marius tey Euh, sa détention est une détention politique maanaam dañ ko jàpp simplement parce que Macky Sall xam na ni moom mënatul a teg leen askan bi parce que am na ay patriotes yoo xam ñoo taxaw waaye aussi France bëgguñu mu génn parce que jàpp nañu ni tey euh, ki nga xam ne moom mooy symbole de la résistance ki nga xam ne moom mooy figure emblématique de la résistance c'est Guy Marius Sagna moo tax ñu bëgg ko denc ci kaso bi. léegi ci jàpp boobu laay desandi ba tey parce manifestation wu étudiants yi ñoo leen génnee est ce que yéen tamit jotul ngeen xool beneen stratégie parce que depuis lors yéen a ngi wax moo ak ñoom Babacar Diop lañ jàppoon étudiants yi génn nañu seen professeur est ce que yéen waa mouvement Frapp France dégage jotul ngeen xool yeneen stratégie pour ñu mën a génnee Guy Marius waaw xam nga combat bi lu mu jot lu lu jot rek ñu def ko parce que étudiants yi mënuñu leen génne ci peuple bi te ñun même Frapp France dégage dañoo am ay étudiants yoo xam ni tey ñu ngi ñuy représenté à l'université ñoom génn nañu xeex peuple bi génne na xeex boobu aussi comme li ma wax rek euh, y a une pression gouvernement bi pour mu jéem a séparer tey euh, li nga xam ni moom mooy étudiants yi ak ñeneen ñi jéem na fexe ba génne professeur kër Diop génne aussi les étudiants mais professeur Babacar Diop il a compris les étudiants ils ont compris que ni volonté boobu du simplement pour jéem ñu diviser mais ñu loolu état munu ko ndax tey la ñu gën a nekk say tey lañ gën a nekk ab dànk boo xam ne tey dinañu àndandoo liggéeyandoo ba nga xam ne dinañ exiger la libération de Guy Marius Sagna loolu engagement wu professeur Babacar Diop la ak FDS bi mu bokk engagement wu étudiants yi la nga xam ni seen structure yi nekk au niveau de de de des des facultés yëpp tey xam nañu ni à part savoir ba fay jàng tey question des droits humains daf leen a intéressé ndaxte Guy Marius Sagna tey ñëpp gis nañu ni euh, dañ ko jàpp dugal ko sax foo xam ne nii comme fa ñuy fa ñuy fa ñuy fa ñuy denc terroriste yi mënul am visite munul mënul mënul am yenn droit de jouissance yi nga xam ne yenn euh, détenus yi ñu dinañ ko am donc loolu rek c'est pour simplement pour euh, essayer euh, di di ko fragiliser sur le plan morale mais loolu mënul nekk parce que Guy Marius Sagna n'est pas seul il a une organisation digne qui est le France Dégage organisation boo xam ni ñëpp gis nañu en temps éclair am na taxawaay boo xam ak Pastef te FRAPP France Dégage aussi ku xam xam ni tey combat bi combat Guy Marius Sagna tey combat la boo xam ne nii dañ koy gagné parce que non seulement ñi ngi ci àndal mu doon un collectif ñoo lànk de plus de quarante membre tey ñëpp ànd nañ ci combat bi mais ñun aussi dinañu wut ay pexe yoo xam ne tey Macky dina bàyyi Guy Marius Sagna ci nii wala ci naka donc moom il faut que mu xam ni tey euh, nous sommes assez déterminés ni mu amee détermination tey denc Guy Marius Sagna ñun noonu la ñu amee détermination tey libérer Guy Marius Sagna te Macky aussi il n'a qu'à se ressaisir parce que na xam ni euh, fayu dina am na xam ni aussi que ni euh, ëllëg bu porté bu bu perte pouvoir bi que ni il va rendre compte et ça c'est important parce que nekkatuñu ci Afrique goo xam ni dañuy am un super homme boo xam ni day jàpp ku ko neex tëj comme ay ginaar non non non il va rendre compte parce que tey y des organismes des droits de l'homme yoo xam ni ils ont pris la chose Euh, Guy Marius Sagna la question Guy Marius Sagna en main donc suñuy avocat aussi fépp foo xam ni le droit international may nañu à ce ñu dem porter plainte dinañ porter plainte te Macky aussi on a dit que sa responsabilité est engagée Guy Marius Sagna lépp loo xam ne dal na ko wala xuri na ko ci biir prison c'est l'État sénégalais qui sera en qui sera responsable on n'acceptera pas qu'il sera sacrifié on n'acceptera pas ñu ko fay teg pour un agenda caché parce que Macky Sall ñëpp xam nañ li nekk ci boppam donc bëggul Guy Marius Sagna génn di dérangé mais il saura que le peuple sera debout au moment opportun léegi visitam yi ci camp pénal est-ce que membre ñoo lànk lañ ko bañal wala ñëpp lañ ko bañal xam nga visite yi Guy Marius dafa am ay droit ak ay ak ak yelleef waruñu ko sax bañal ay ñoo lànk wala keneen nit boo demee nga joxe sa pièce d'identité ñu identifier la war nga mën a am nga dem gis Guy Marius Sagna mais li ci ëpp li ci gën a doy waar mooy même bu ñu nee la tey mënoo ko gis ñoom duñ la jox benn ordonnance de refus duñ la wax ni la lii motif bii moo tax wala motif bii moo tax mais Guy Marius Sagna c'est un prisonnier de droit commun prisonnier bu nekk rëbës wala nga nekk campenal nga am droit lu nga am si droit rek Guy Marius Sagna am na droit boobu en quel donc droit la ñu bëgg jël Guy Marius Sagna ni moom amul droit gis ñenn ñi amul droit gis ay camarades ñun ñi ci ay camarades am ñi fa dem ñëpp mënuñoo am permis de visit boo fa demee on te pose des questions yoo xam ni sa ça n'a rien à voir avec même détention am na fa ñoo xam ne nii suñ suñu kuréel la ñu bokk am na ñoo ne ñoo lànk la ñu bokk mais am na ñoo xam lañ dem nañ dañ leen ko refuser mais je pense que ni loolu waru képp koo xam ne nii tu es un euh, droit de l'homme tu es un homme épris de paix et de justice tey war nga mën a dénoncer loolu même les terroristes même les ñi nga xam ne tey dañu dañu rey nit dañoo am droit te ñu ay nit ñi ngi leen di seeti mais pourquoi Guy Marius Sagna nanguñu mu am un contact avec l'extérieur pouvoir bi lan la tiit li ñu tiit mooy seen gestion bu bon bi bëgguñu koo xam ni dina koy weer mais ils sauront que ni il y a mille Guy Marius Sagna aujourd'hui au Sénégal parce que tey Sénégal Guy mari Sagna tey fa mu toog tey ñoom war nañu gis ni la question de l'électricité ba muy dem di marché neuf personnes lañ jàppoon mais tey xoolal marché yi ñuy ñëw donc les Sénégalais ont compris donc li ñuy gën a téye Guy Marius Sagna ils sauront que ni le peuple aura au moins compris que ni euh, Guy Marius Sagna message bi mu leen doon délivrer egsi na si ñoom te peuple boobu loolu la Guy Marius Sagna jëloo bëggoon et je pense que ni tey loolu dina gën a continuer Sénégalais yëpp nañ gën a comprendre que ni ce pouvoir là et c'est simplement n'est-ce pas de museler nos libertés et li gën a garaaw tey en dehors de Guy Marius Sagna da ngay gis même ñi mu nekk ci membre collectif bi dañ leen di dañ leen di xoqatal yaa ngi gis tey bu nekkee ay distribution flyers sax ci ay loo xam ni c'est des idées pour wane ni mauvaise gouvernance ak aussi gabegie bi Sénégal nekkee que lii jaarul yoon nga jox ko ay sénégalais ñu fekk la fa jàpp la mais xam nañu que ni ku aj bëggul ku teen ñoom daa am loo xam ni def nañ ko ñun nag les citoyens xam nañu li ñuy def parce que on a vu les rapport de de la Sénélec de 2017 Sénélec ba léegi mi ngi làq rapport 2018 am nanguwu koo génne pour quelle fin Sénélec mi ngi racket citoyens yi wax ni au mois de décembre la hausse bi war a génn mais ñëpp ku nekk ci kër tey xam nga ni aussi bi sentir nga ko avant mois de décembre ça veut dire ñi ngi sàcc alalu askan bi te loolu nag ñun dinañ ko démasquer à travers un mémorandum boo xam dinañ ko rendre public ñëpp dinañ gis ni en réalité ces mouvements citoyens là sont des mouvements citoyens qui vont dans les vers l'information aussi dañu nekk ay mouvements citoyens yoo xam ne nous sommes très avertis ndax Sénégal ña fa nekk ci école Sénégal la ñu jàngee ñun si école Sénégal la ñu jàngee xam nañu li ñu àq ak yelef may ci suñu suñu dëkk du ñu jël gaal yi du ñu toxu du ñu dem fenn on sera là jàkkaarloo ak régime Macky Sall parce que nag à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir gis nañu aussi ngeen ne da ngeen di def benn euh, rencontre le 31 vendredi 31 est-ce que préfet dina leen ko nangoo may ak bu leen ko mayul nan ngeen fas yéene def. bon moomu may bi sax man dama koy dindi parce que nit ki lu mu moom lay maye préfet moom du ñu may parce que moomul ndaxte bu ñu waxee marche constitution Sénégal moo ni ñun dañ koy yëgal te yëgal nañ ko. donc moom euh, li ñuy wax ku sañuta bañ sañ a nangu préfet dafa war a nangu bu nanguwul aussi moom xam nañu fañ daan jaar ak moom donc loolu moom préfet defe naa ne ñun xamante nañu léegi donc nekkuñu ci pays boo xam ni dañuy accepter à ce que sur des prétextes fallacieux dañuy jël suñuy suñuy liberté di ñu brimer à ce que ñuy nangu duñ ko accepter et puis je pense que ni jour boobu moom préfé Euh, dina ñëw sax àndandoom ñun marchandoom ñun parce que moom dafa war a wax ni ñoo lànk mais xam nañ ni peut-être même ko waxul moom du fay courant moo tax peut-être mu ñuy jéem aussi yeneen i service d'État yi du ñu fay courant ak aussi yenn ñi nga xam ne ñoom ñooy peut-être les grade ak aussi ñi nga xam dañu nekk ci Senelec ci ñenn ñi duñu fay courant mais ñun citoyens yi nga xam ni dañuy fay courant te facture yi seer xam nañu marché bi li mu mën a jur ci ñun. ci semaine bi ñu génn gis nañ ko Londres am boo xamante ne dafa toog. Macky dugg war a def discours am mu naan ko nañ libéré Guy Marius Sagna est-ce que du yéen ko yónni tamit. xam nga combat bi fi mu toll. yéen sonal ngeen Macky Sall. kenn kenn kenn wul kenn ku nekk looy def c'est des actes mûrement réfléchis et daam boobu dañ koy féliciter man de wax fa dëgg yàlla foofu mu nekkoon keroog bëggoon naa faa nekk te bu ma amee occasion bu fii ci Sénégal dinaa yuuxoo Macky Sall parce que foofu lañ toll ak moom bis bu ma amee occasion femme bi foofu mu toll ak loolu mu def bis bu ma ko amee dinaa ko def. mais boo xoolee ci pays yi nga xam ni moom mooy les pays européens foofu moom eh, am na yoo xam ni peut-être ci en terme de liberté nit ñi mën nañoo am accès mais ñun tey Macky Sall mënuñoo am accès boobu jege ko parce que ki nga xam ne dafay ba nit ñi yegsi si giri palais bi mais kooku defe naa ni buy def conférence wala muy def leen euh, waa APR rek ñoom ñoo fay nekk mais moom bu fekkee ñemee na Macky Sall na ubbi ay buntam ba bu mu def benn benn benn benn benn benn contrôle ci nit ñi ba nit ñi mën a am accès ci salle yi dina xam ne dina am ay sénégalais yoo xam ne ni suñu compatriote boobu nekk euh, bitim réew def moom aussi moom la def te loolu dugg duguleet parce que fàttaliku nañu bi mu demee Paris dañ ko xëppoon farine fàttaliku nañu bi mu demee euh, États-Unis ñu gis ni Marème fay Sall sax moom moo mujj génn di jàkkaarloo ñi nga xam ni ñoo doon yuuxoo moom dafa mujj a daw donc moom xam na ni il sera traqué partout te loolu dafay tilimal sax deru Sénégal ndax président Sénégal bu mosoon dem ci bitim réew mais ressortissants yi li ñu daan def mooy jéem a rencontrer seen président jéem a waxtaan ak moom mais bu demee ba moom bu ñëwee nit ñi li ñu koy jéem a wax mooy que suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xam ne da nga ko séddoo yàq sa rak ak Aly Ngouille Ndiaye na ko génne li nga xam ni moom mooy mauvaise gouvernance bi nga plongé ci Sénégal ak aussi dette bi nga xam ni yaa ngi koy wër di leb fépp di ko dugal ci lu amul njariñ ba pare jàpp suñu alal di ko pasar pasare ba pare jël ñi nga xam ni ñoom ñooy résister nga tëj leen ñi nga xam ni dañoo sàcc alors réew mi nga jëm leen a protéger je pense que ni loolu diaspora bi ils ont compris parce que ci dëkk yi ñuy dëkk xam nañ ni loolu mënul te exister pourquoi muy exister ñun fii Sénégal. ani lan mooy doon sa dernier mot. waaw sama dernier moo defe naa ni dama koy jagleel citoyen sénégalais yi di leen wax ni leen euh, combat bi fi mu toll tey responsabilité ku nekk daf ci nekk donc di leen wax ni leen ñu gën a am sawarte ci ñëw ci marché yi àndandoog collectif ñoo lànk ndaxte li ñuy xeex. ci citoyens yi la li ñuy xeex mooy que ngeen am tey euh, électricité bi nga xam ne moom ngeen soxla mais aussi ngeen mën a nest pas am lépp luy seen àq ak seen yelleef. ñu ngi lay remercier Alioune Badara ñu ngi remercier mbokk téléspectateur yu Equivox TV tey dañu amoon mbégte dalal Alioune Badara Mboup leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité.